dañ leen a indil euh, thème bu am solo mu di ragal yàlla. ragal yàlla nag gis na ni mooy lépp ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñépp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rekk loola baax moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al izza wal ibra wa jalbu taqwa dañu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo walla mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin al-ghifari radiyallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير jëli nañ ci abi zaran alxafaari radiallahu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk nam dénk nam ay baat yu nga xamante ni moo ma gënal àdduna ak li ci biir nee na baat yi ba ma ko seetantalee gis naa ci njëriñ yu rëy baat yi nag moo di lii daf ma wax ne ma yow abazar nee na nga xam ni àdduna gaal la wala àdduna géej la te gaal moo la ci war a jàllale mu ne kon nag na nga xereñe gaal gi ngay dugg nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmale ci yàlla nga koy teg ci ko àdduna mu di géej nanga xool gaal googu na ko xereñe ah gaal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggane sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag fooye nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo luy julli xamuloo attey woor xamuloo attey joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagal xamuloo lan mooy miiraas ñu bari defe nañ ne miiraas nit ñee koy séddaleel seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo ni ñu war a fase bu dee ci wàllu tur yi ngay zikkar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yan tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa boroom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaar yi nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na abi zarnil xifaar yi ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yóbbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg ah, fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag bi ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekk ci waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna naaqida basir mu ne ko na nga na nga sellal si liggéey si digganteeg sa boroom nee na sellalal liggéey bi ndax kiy surveiller liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer ah, yàlla de yaxlamu xaainatul ayuni wa ma tux fi sudur yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam la dënn ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp jóge ci asamaan tab bi ci lëndëmu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara dara réeru ko moo xam la ci kaw asamaan yi la wala lii nekk ak fii ci suuf dara ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kenn mënu ko nax mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko dee jox nañ ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zarr al-Ghafaari radiyallahu mu ni ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi xam nga xadis ni ku ko setantal setantalaat ko dañ ci waaru bu baax a baax a baax a baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot na sa yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaareel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه mu ne ñaareelu barab bi mooy lii nga xamante ni dañu ko li jële ko ci benn sufiyanke muy orienté nit ki pour nit ki jëm ci yàlla te sukkandiku itam ci yàlla moom sufiyanke bi mu woy ko woy rafet mu wax ne الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض, وفض محلال man laa wujuda li zaatihi min zaatihi fa wujuduhu lawlaahu aynu mixaali wala aarifuuna wala aarifuuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa almutakabbiri almutacaali wa ra'aw siwaahu cala alxaqiiqati haalikan fi alxaali walmaadi walistiqbaali moom sufiyanke bi nee na waxal qulillaaha wa daril wujuda wa ma xawa waxal ak yàlla na la yàlla ñor nee na li nekk ci àdduna bi ci ay taar ak i rafet rafet ak luxe nee na bàyyi ko fi ña ko jàppoon ñépp bàyyi nañ ko fi dem kon bu ci rey sa bopp kon jàppal yàlla wa daril wujuda wa ma mu ne in kunta murtaadan bulooxa kamaali su fekkente ne nag mët ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut àgg ci mëtuk doomu aadama àgg ci jikko yu kawe àgg itam ci dikk ak yonent bi ca àjjana ca firdaus bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon wàccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp su boobaa danga am àdduna am alaaxira waaye bu fekkee danga jël àdduna muy sa lépp mën ngaa ñàkk yàlla waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp mën ngaa am yàlla am àdduna kon allaha qul wa daril wujuda wa ma xawa in kunta murtaadan buluga kamaali mu ni fal kullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala tafsili boo ko settantalee médité ci xool ci danga naan daal adamun danga naan daal loolu amul lépp loo xool lu dul yàlla rek danga naan existé wul amul waaw loolu nag moo xam wax ji ñu tënk la wala wax ji ñu détaillé la waaw moom daal lu dul yàlla rek neen nga waaw lu dul yàlla rek neen nga waalam bi nag wala awaalimu kulluha lawlaahu fi maxwin wa wa fi mixlaali mu ne yow nit ki nanga xam ne yow ci sa bopp ak li yépp ci ay mbindeef budul woon ak yàlla doo fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko mën ci teg sa bët yépp yàlla kon nag joxal kooku sa bopp yàlla moomu jox ko sa bopp ndax lu fi am moomu budul woon ak moom dara du am mu ne man laa wujuda li zaatihi min zaatihi fa wujuduhu lawlaahu aynu mihaali lépp loo xamante ni bu doo nag jëmm yàlla ja doo am mu nekkoon kon sax maanaam lépp loo xamante ni da ne da am te yàlla du ci dugal loxoom nee na loolu nag mooy li jomb ndax lu am rek coobare yàllaa nga ci moom la neex mu amal ko kon nag dara mënul am te loolu soobul yàlla kon li bëgg am te soobul yàlla loolu mooy li jomb mënul nekk moo tax mu ne wal aarifuuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwal mutakabbiril mutaali ña doon dox di rey seen bopp pour xam yàlla ba ñu demee ba yaakaar ne xam nañu ko ca lañu jeex tàkk te itam gisuñu ci yàlla lu dul mooy ki rëy ki kowe ba kenn mënu koo daj kenn mënu koo xam yàlla rek a xam boppam waaye kenn xamu ko ñu ne kon ku seetaat am gi nga xamante ni yàlla am na ko te moo di wax waxdaaniyaam nga médité ci dana def ci yow ragal yàlla gu nga xamante ni dara dootul fees sa bët su dee taxawaayu ñaareel bi mu di Maalik ibnu Dinaar raximahu llahu taala qaala ataytu maqabir li andura fi lmawta wa actabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa anshatu aqul malik ibnu dinaar nee na dama ñëw ci sëg yi pour xool néew yi fi nekk pour mën ci waaru mën ci xalaat mën ci jàjjoo bu fekkee dama daan mooy yàlla di ko tooñ ma xalaat ne tey jii am na ko fi tëdd ku daan tooñ yàlla te tëdd na fi su dee lu baax lu mu bëgg a def ma xalaat ne am na ñu baax ñu ñoo xam ne dund nañ fii ci àdduna bi tey ñu ngi ci sëg yi tëdd nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi nee na ci laa nag def lu tolloog nee na quelque ay abyaat doon way doon essayé nee na li nga xamante ni yëg naa ko ma wax ne ataytul maqaabira ak ataytul maqaabira naadaytuha fa ayna almuazzamu walmuftaxiru wa ayna al aadilu bi sultaanihi wa ayna al azizu ida ma qadar wa ayna al mulabba ida ma daa wa ayna al mudakka ida ma xadar nee na man Maalik ibnu Dinaar bi ma ñëwee dama ne dama woy bind ne man di ñëw naa ci sëg ma daal di woote daa wax ci sama làmmiñ ne ana ñañu màggaloon lool fi ci àdduna bu bu ñu génnee ñu dar leen ak motaar bu ñu taseeg ñoom tóojal leen ana sëriñ yañ daan sukkal di leen jox ñaari loxo bu ñu wootee ñu daw ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu ci seen at ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamante ni lu ñu masaan a bëgg a def def ko ana ñi daan woote ñu daw wuyu leen ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi nee na bi ma waxee wax bi am na benn baat ma tontu ne ma tafaanaw jamian fala muxbirun wa maatu jamian wa hada alxabar taruuxu wa taxdu banaatu thara wa tamxu maxaasinu tilka suwar laqad qallada alqawmu acmaalahum fa amma fa imma naimun wa imma saqar wa saaru ila malikin qaadirin azizin mutaacin ida ma amar fa yaa saaili an unaasin madaw amalaka fi ma mada muctabar nee na am na leneen lu ma tontu li ma tontu daf ne ma ñi ngay laaj de dafaanaw jeex neen jamian ñoom ñépp fa ma muxbirun amul kenn ku mën a taxaw pour mën la tontu sëg yi néew yi fi tëdd amul kenn ku mën a jóg tontu la te kat ay jëmm leen yu daan dox ci kaw suuf di wax seeni soxla boo leen léeg-léeg ñu mer léeg-léeg ñu kontaan yor seeni i étage yu jëkk ak seeni i jongama ak seeni oto di puukarewu ñoom ñëpp dem nañ tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg a dee waaye kenn du la tontu ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi dégg nga maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëyee ko gont waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rekk nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji buur bu am doole ba te am kàttan buur ba ñuy topp ci lépp lu mu digale kon yow miy laaj nit ñi nga xamante ni wéy nañu yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii kon maalikum nu dina baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii yaa ngi dund ci kaw suuf de néew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul kon nag na nga góor góorlu noo mën ba waaru ci ñoom boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax nee na foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi nee na ma xool nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndeyjooram jooram ree waaw nee na dof bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah nee na jékki-jékki xool ci suuf daldi di ne ah man de waaru na nee na daal di jékki xool ci càmmoñam ñoom di xool ci ndeyjooram jooram daal di reetaan xool càmmiñam càmmoñam daal di jooy nee na ma daal koy nuyu ne ko asalaamu aleyka maa ngi lay nuyu yow waa jile mu ne ma wa aleykum salaam ya malik ibnu dinaar ma ne ko yow di araka qaacidan bayna alqubur maa ngi la gis yaa ngi toog rek ci diggante bàmmeel yi mu ne ko waaw toog naa ci ay nit ñoo xamante ni duñu ma lor waaw ñëw naa fi toog ci ay nit ñoo xamante ni duñ ma lor nee na te itam su ma fi jógee duñ ma jëw waaw xam nga ku dem toog kii sëg ay nit nga toogal waaye ñooñu mënuñu laan lor waaw ndax kàttan nga leen tëral moo tax mënatuñoo def dara mu ne ko itam te bu ma fi jógee duñ ma jëw loolu mu ngi koy wan ne ko ñëy dund ñu ngay jëwaate waaye ñadee taluñu ko nee na ma ne ko waaw malikum nu dinaar wax dof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illa xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga xool sa ndeyjoor daal di reetaan xool sa càmmuñ daal di jooy mu ne ko yow malikum nu dinaar mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila lsamaai tadakartu qawlahu taala wa fi lsamaai risqukum wa ma tuadun mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan li ma leen ci digg yépp ci wërsëg danaa leen ko jox waaw comme suñu wërsëg nag mu ci kow asamaan yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niir yi kese nee na loolu dana ci yéemu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn benn benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jàmm ko di lor ku dul yàlla moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax laa ilaha illa allah mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakkartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nucidukum wa minha ne ko ma xoolee ci kaw suuf nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf wa fiiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo suma leen reyee ku dee rek mbokk yi ne nañ ko suuli wa minha ci biir suuf nuxrijukum laa leen di génnee waaw te mooy bisu dekki ba mu ne kon wa xaqun liman sami'a hadhihi al-aaya an ya'tabira mu ni ko kon nag yey na lool ci ku dégg aaya bi lii waar ko yàlla bind la ci suuf delloo la ci suuf génnewaat la ci suuf mu ne ko wa ida nadartu ila alyamin tazakkartu qawlahu taala wa asxaabu alyamini ma asxaabu alyamin nee na su ma xoolee sama ndeyjoor dafa may fàttali waxu yàlla ba fa yàlla di waxe ni boroomi ndeyjoor ya dégg nga xam nga boromi ndeyjoor yi bu ko yàlla di wax moo di na ñan moo di nit ñu baax ña nit ñu texe ña nga xamante ni ëllëg yàlla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téere jëf ñu jële ko seen loxoy ndeyjoor loolu day wane ni ñii ñooy nitu àjjana ya àjjana la ñu jëm texe nanu ne nu looloo tax ma rey mu ne kon wa xaqun liman samia hadihi al aaya an yadxak mu ne kon yey na lool jaadu na lool ku dégg aaya bii tey jullit nee na nga rafet njort ba war a ree mu ne wa ida nadartu ila shimaali tadakartu qawlahu taala wa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaali fi samumin wa xamin wa dhilli min yaxmum la baridin wala karim mu ne su ma xoolee sama càmmoñ nag damay fàttaliku wax yàlla ba fa yàlla di waxee ne ñoñ càmmoñ ya waaw nee na ñooñ càmmoñ ya nag moo di ña yàlla jëppi te mooy yéeféer yu bon ña ñi nga xamante ni yàlla dogal na ni ñoom safara la ñu a jëf eh, la ñu jëm fa la ñuy dugg te seeni jëf rekk waral ko ñooñu la yàlla wax ne ñooy boroomi càmmoñ ya ndax seeni téere malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen càmmoñ ñooñu nag ker ya ñuy kerloo ci safara ker yu tàng la ndox ma ñu fay naan ndox mu tàng la te lekk gu baax amu fa mu ne kon wa wa xaqun liman samica hadihi al aaya an yabkiya mu ne kon yey na lool ku dégg aaya bi nag war a jooy mu ne fa hadihi al mawaqif aw al idaat al thalath mujlibatun liltaqwa wa baacituhu ala alxawfi min allahi taala wa daaciyatun lilrujuci ilayhi wa tashabuti bi rixaabihi altahira التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه moo tax yàlla wax ci alquraan ni innama yaxsha allaha min ibaadihi al ulama yàlla nee na ñi ma ragal ci samay jaam moo di boroom xam-xam yi ndax gis ngeen yàlla di wax ci alquran ni yàlla di wax ci xadisul qudsi yi ne faarifuuni qabla an taabuduuni maanaa na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee waa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw ba yàlla joxee boroom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na boroom xam-xam cër bu rëy ndax wax nañ ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kawsara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko doom wëlis keneen ku dul moom wax nen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis nen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ca loxoom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni boroom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci boroom xam-xam rekk leen koy séentoo moo tax wax ngeen ne afdalul acmaali almawaddatu li awliyaa illahi taala walmuaadaatu li aadaa illah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp boroom xam-xam nga xam ne wëliyu yàlla la boroom yi bari nanu wante boroomu xam-xam xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla nee neen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee na itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul jiine du jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko sharia bëgg ko kon jaamu gu la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna muusa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabaxtu laka wa xamidtu nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna muusa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilaahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu lak wa qara'tu kitaabaka wa dakartuk qaala allahu taala ya muusa amma alsalaatu fa laka burhaan wa amma alsawmu fa huwa laka jann junna wa alsadaqatu laka dill wa altasbiixu ashjaarun fi ljanna wa amma qiraa'atu kitaabi fa laka qusuurun wa xuurun wa amma dikruka lii fa huwa laka nuurun fa hada kulluhu laka ya muusa fa ayu amalin amilta li qaala muusa ilaahi dullani ala amalin huwa lak qaala ya muusa hal waalayta li waliyan qat wa hal aadayta li aduwan qat fa calima muusa alayhi salaam anna afdal al acmaal alxubbu lillah walbucdu lillah ñu ne dikk na ci suwaar ñu ne yonent bi sallallahu ñu ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam yàlla wax nag moom bis ne ko yow Muusa ndax mas nga ma jëfal benn jëf Muusa ne ko waaw ndax yàlla man jullil naa la wooral naa la saraxel naa la sabbal naa la sant naa la jàng naa sa téere bi zikkar naa di la fàttaliku yàlla ni Muusa julli gi nga julli yaa ko moom ndax ëllëg mooy nekk sa avocat moo lay layal ba du dugg safara kon kooku sa bopp nga ko doon defal waaye du man mu ne ko koor gi nga doon woor kooku kiiraay la ci yow ëllëg safara day tax doo fa dugg mu ne ko saraxe bi nga doon def kooku ker la guñ lay kerale ëllëg ndax ëllëg dana wàccee jant bi ba naaj wi dana tàng sarax yi nit ñi di saraxe mooy nekk ëllëg ker gi leen di yiir ba du ñu yëg tàngooru jant boobu mu ne ko sàbbaal yi nga doon sàbbaal ay garab la yow doon jëmbat ci aljanna loolu lépp pour sa bopp la du pour man mu ni ko jàng bi nga doon jàng alquran loolu ay kër la rekk yuñ la ci tabaxal algenna ak i xuurun ayn mu di ay jigéen yu rafet yuñ la fa dencal ngir jàng gi nga doon jàng alquran mu ne ko nag fàttaliku bi may fàttaliku di ma tudd loolu day tax lëndam gi am ëllëg tudd ga ma doon tudd bu ñëpp dee nelaw nga jël sa kurus tudd googu mooy nekk lumière bi lay niital mu ni ko waaw muusa yii yépp nag yaa ko moom ndax man awma ci dara kon bën jëf nga ma sa jëfal Moussa ni ko ah, sama boroom man nag kon gàtt na ndax defe woon naa ne lii may def yépp yow laa koy defal kon nag tegtal ma nga wan ma nga orienté ma jëf ju nga xamante ni danaa ko jëf ngir yow yàlla ne ko yow Moussa ndax mas nga ma bëggal benn waliyu ndax mas nga ma noonul benn noonu su fekkee mas nga ma bëggal waliyu boo xamante ni gërëm naa ko sopp ko nga bëgg ko noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma bañ su fekkee loolu am na su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man waaye lu dul lool rek dangaa def ngir sa bopp foofu nag la yonent yàlla Muusa waxi ne ndeke daal ann afdal al amal al xubbu lillah wal buxdu lillah ni ki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko boroom xam-xam yi moo di cëru ñu màggal leen ngir jëmmi yàlla xam ne yàlla leen dara jaal yàlla itam moom moo leen faydaal ci lépp nag moo tax ñëw na ci histoire ñu ne ëllëg yàlla dana rekk régler ab jaam jëfam ju bon ëpp jëfam ju baax ba yàlla wax ne kii kat yóbbu leen ko safara fekk boobu jullit la xam nga jullit ñi ñetti groupe lanu am na groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya am na groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya am na groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffaar waaw bu ci nekk rek ñëw na ci alquran groupe bi yàlla dafay yombal seenuk rek le du leen topp dara mooy groupe bi nga xamante ni ragal yàllaa ngi ci ñoom moom la yàlla wax ne fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira waaw moo taxoon ñu laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla dafa wax ne képp koo xam ne génn nga ci sa bàmmeel dekki ñu joxe la sa téere ndeyjoor nga nangoo ko ndeyjoor ñu ne yow danañu regle say problème regle bu yomb du am benn difficulté saxaaba yi daal di laaj yonent bi anil xisaabil yasir ne ko yow yonent yàlla bi wax ñu lan mooy régler bu yomb mu ne yàlla dafay jëflanteeg way gëm ñi yowmal xiyaam comme na yuusufa jëflante woon ak mbokkam ya ca ba ñu ko loree ba dugal ko ci teen ba mu xëy di buur yàlla nattu leen amuñu dara ñu dégg ne am na buur buy dimbali nit ñi ci wàllu dund ñu dem ndeke mooy seen rakk ja ñu sànni woon ca teen ba yéene ko ak dee yéene ko ak torox keroog ba leen yusufa jekkoo jéggal na leen moo tax itam ñii bu leen yàlla jekkoo daf leen di jéggal mu di tabaxatul atqiya ndax yusuf alayhi salaam dafa waxoon mbokkam ya bam leen xàmmee ba xam leen ba jàpp leen dafa daf leen wax na leen laa tathriba alaykumul yow tey bu mu am dara lu leen naqari bu mu am dara lu ngeen di mettitlu ci seen xol la ngeen ma tooñoon baal naa leen ko set na wicc ci sama xol topp ma leen lu toll ni peppu zar waaw yàlla itam jaamam yu te yi daf leen di wax ni laa xawfun aleykumul yawm wala antum taxdanuun yéen ñi kat tey bu leen am dara lu ngeen di tiit bu leen am dara lu ngeen di ragal jéggal naa leen topp ma leen dara kon mu mel ni doomu aadama du gën a mën a baax yàlla kooku moo di tabaxatul atqiya su dee tabaxatul ashqiya mooy ñaareelu groupe bi ñoom yu yunaqashuun danañu discuter ak ñoom vérifier seeni jëf waaye nag yàlla dana leen mujj yërëm jéggal leen ñoom nag la ñuy tuddee moykat yi moo di kàccoor yi waaw yàlla dana euh, vérifier seen jëf waaye nag regle ba nag dana metti ba dana nu saalit waaw dana nu saalit waaw moo tax ñoom dana ñu wax ne yaa laytani lam uuta kitaabiya aka neexoon tey ji sama téere bi ñu bañ ma ko jox ba may régler ndax régler bu metti waaye nag du tee bu yàlla régler ba noppi daf leen di jéggal daf leen di jéggal baal leen waaw dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni laa tazaalu laa tazaalu laa tazuulu qadama abdin yowma alqiyaama min bayni yaday allah xata yus'ala an cumrihi fi ma afnaahu wa an maalihi min ayna iktasabahu wa ayna afnaahu wa yusalu amma fi kitaabihi fa ida balaga axira alkitaab yaqulu allahu taala ya cabdi kullu hada camaluk aw anna malaa'ikati zaadu calayka fi kitaabik fa yaqulu ya rab la walakinni facaltuhu kulla fa yaqulu allahu ana alladi satartu calayka fi ddunya wa ana أغفر لك اليوم اذهب fa bi fadli ñu ne yonent moo ko wax mu ne ëllëg yowmal xiyaam jaam bi du dañ di taxaw ci kanamu boroomam ñu koy regle ba laaj ko ci biir rekk la ba ne ko waaw juróom benn fukki at yi nga dund ci àdduna man yàlla ma defal la ko nga dund juróom benn fukki at ci àdduna wala juróom ñett fukki at ci àdduna ak yooyu ci lan nga ko paase ndax danga ko fo walla danga ma ko jaamu wala danga ko jàng alquran wala danga ci dem di wuti bind wala danga ci wuti wërsëg woo dimbalay jaam yi waaye sa dund boobu daal ci lan nga ko paase dana ko laaj itam alal ji ma la joxoon noo ko fàggoo ak ci lan nga ko def ndax ba nga ko fàggoo ba am ko naka nga ko fàggoo bi nga ko amee ba noppi noo ko déconseil daneen ko laaj itam ci téeréem la ca nekk yépp lii lu tax nga def ko lii lu tax nga def ko lii lu tax nga def ko ba daneen ci dem ba jaam bi dana reconnaître xam ne moom daal safara rekk a yey ci moom yàlla nag ne ko lii mooy sa jëf wala dama lay laaj yow malaaka yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yàlla man maa ci dolli ñu ne ko waa ji ne ko déedéet ni nga ko réglé lépp noonu la kenn dolliwu ci dara lépp maa ko jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma leer na ma nañ waaw moo tax ñoom dana ñu waaru bay wax naan maa li hadal kitaab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha mu ne yéemu naa ci téere bi moom de muuñ yemu doon muuñ ci àdduna sax waaw bàyyiwu ko génnee na ko moom daal bàyyiwul dara waaw xef ya xippi yeeg waaw wokkatu yeeg muuñ yaag yépp bàyyiwu ci dara téere bi daal moom a jaaxal atte bu maandu boobu yàlla atte jaam bi ba xam ne safara yey ci moom yàlla dafay dellu wax ci yërmandeem ak ngëneelam ne ko ana alladi satartu alayka fi dunia man kat maa la suturaaloon ci àdduna ba kenn xamul ayib yi nga nekke woon waaw man yàlla moomu ndax damay bàyyi ba tey ma lakk la déedéet na ma la yërëmee woon ci àdduna noonu laa lay yërëme tey ci àllaaxira kon itam tey dinaa la jéggal kon nag jéggal naa la ci sama ngëneel jëggal naa la ci sama yërmande ñu ne ñooñu ñoo di tabaxatul ashqiya yërmande yàlla boobu la leen yàlla di àttee ba ca des moo di tabaqatul kuffaar mu di mbooloom mu di équipe bu yéeféer yi ñoom moom seen téere dañuy malaaka yi dañuy xotti seen dënn yi jël seen ñaari loxo dugal ko ci seen dënn yi seen loxo yee féete gannaaw ñu joxe leen noonu seen téere waaw wa man uutiya kitaabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mu ne ñooñu nag nga xamante ni nangoo nañu seen téere ci seen gannaaw nee na ñooñu nag ñooy dugg ci safaraw thabur ñu ne pour mën a leeral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jaam boo xam ne yàlla daf koy régler ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo jibril jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal ma ko ndax daan na toog ak boroom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko jibril dab waa ji laaj ko waa ji ne ko jibril waxal sama boroom ne ko man de mosuma fréquenté boroom xam-xam yi mosuma sax toog ak ñoom daawuñu seq géew jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp boroom xam-xam kenn ci boroom xam-xam yi ndax am na kum ci mas a sopp jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de mosuma cee sopp kenn ñoom sax intéressé wuñ ma woon yàlla na kii de bëgg naa ko yërëm waaye nag mbiram daal doy na waa noonu jibril ñëwaat yàlla yabalaat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp boroom xam-xam waaw ndax mësul sopp koo xam ne mos naa sopp borom xam-xam ba mu ko laajee mu ne ko akay ah, amoon na benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté boroom xam-xam yi mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi kon nga xam ne yàlla moo yëkkati boroom xam-xam yi jox leen ja waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama moo tax yàlla wax na ne man yàlla sedde naa ne amul benn buur bu dul man malaaka yi seede nanu ko boroom xam-xam yi itam seede nanu ko kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di boroom xam-xam yi kon boroom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñépp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara ngi jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp yow nag boroom xam-xam yi nga woo leen di tànq ci sa loxo bu tedd bi di leen jox yonent bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm yonent bi ne ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce di yittewoo itam ëpplante alal ak daraja boroom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji looloo tax ma gërëm leen yàlla gërëm leen looloo tax ñu am martaba bi e, tabaarakallahu mbokk yi yent bi sallallahu alayhi wax na ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem mu ne minal mahdi ila lahdi nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bàmmeel kon gis ne ne saxaaba yi nga xamante ni tey ñoom lañuy ñuy tuddee boromi xam-xam mu di Abdullah ibnu Mas'ud lu demee ni ki itam Abu Bakrin Siddiq lu demee ni ki Ubay ibnu Kaab lu demee ni ki euh, punkali saxaaba yooyu yëpp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu ñu mën a yor kër nekk ay muskàllaf ñii ngi toll ci seen ñeent fukki at ñii passé neen seen fanweeri at kon jàng du wees tabaarakallaahu te itam ngëneel bu rëy ngi ci mu mel ni nag loolu leen leen indiloon ci waxtaan kon nag mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape ja ak al imam Moussa